ana xuja yow ñu ngi lay ziar bu baax. ah soxna jaar ñoo ngi delloo ziar bu wér faal. Ah, taxawaay tamit ci bis bi lañ bëggoon a xam nu mu demee. taxawaay moom benn taxawaay la rek ni mas nekk ni mas a demee te noonee képp lay demee ndax noonu képp moo yoon bi muy liggéeyal borom Tuubaa liggéel liggéeyal borom Tuubaa mi ngi àjjewoo ci xasida yi ndax ci xasida yi dañu mën a jàppee borom Tuubaa tey ci xasida ci xasida yi dañu borom Tuubaa mën a jàppee kon loolee rek mooy taxawaay bi euh, dundal alxuraan jàng alxuraan euh, jàng fi xasida def fi ay salaatu julli ci euh, yonent bi ndax loolu lañu ñu borom Tuubaa sant sant fi yàlla waaye sant borom Tuubaa ci xasida yi mooy li sëñ am soto woote mooy màggalu xasida yi xam naa ne moom yaa ma gën a xam sax yow sa raqu bis boo ñëwee mu mel ni tey ñu jàkkaarloo benn soxna soo xam mu ngi jógee ba asalem ñu bëgg koo laaj moom bi mu ñëwee fii foofu lu muy yëg ak moom li ko tax a déplacé wu ak yëg-yëg mu am tax mu déplacé wu jigéen këram ñëw ñamu kurusam gi loolu lañ bëggoon a xam soxna si waaw li tax ma ñëw fii nii xasida yi rek ñoo ma yëkkati ak sëñ am sa ak sëñ Touba yi ma dikkee fi ne yëg naa loo xamante ni sama yaram maa yàlla rek ñoo ko xam ci barke sëñ wër na sëñ Fall yëg naa ci loo xam sentir naa ci loo xamante ni si su ma demee su am na lu ma mel sax dina ma gën a yokk ndax li ma gis ci jotaay bi ak sama moroom yi ma gis ak ni ñu lant ma xam yéen maanaam sëñ Tuubaa rek moo leen ñor li ma ci yëg instant bi sama yaram bi mi ngi mel luy lox ndax li ma ci yëg ma yàlla rek ñoo ko xam. ci borom Tuubaa ci mi mi mi mi joxe pen bi yëpp ngir suñu jëmm yi bind xasida yi ngir ñun képp ci ñun moom képp la suñu xel di dem kër xasida gi nag. kër xasida nga wax yaa ko wax ñu fi daan toog di fi dundal xasida yi ba tey mu doon këru xasida ak Sëriñ Amsatu Mbàkke kon liggéey xasida yi lañ fi gis bu weesoo loolu amul leneen luñ fi yëg dul borom Tuubaa waaw te fu waay nekk fu ne ak foo mën a nekk borom Tuubaa googu dafa war a dox ci yow boo dee nitu xasida di dund xasida waaye fii moom da ngay xam ne yaa ngi sa kër xam nga ki nekk ci biir këram ak ki dem ci kër jàmbur bokkul waaw dañoo nekk nag suñu biir kër muy kër xasida day ndax kat bo sëñ mu taxaa da ko wax njabootu xasida yi kon njabootu xasida yi ci biir kër xasida yi kon jàmm rek la ñu mën waaw comme li nga wax rek maanaam dama fay gis ay royukaay daal gis naa fa ay royukaay li ma la waxoon bu fekkee mel naa leen su ma yeggee man li ma gis rek jaral na ma ci boppam ma changé changé boo xamante ni si ma xam ne ñi moom xasida yi rek moo leen ñor sama xol nag moo fees ba mënumaa wax waaye kontaan naa bu baax fii nag mosuma fee ñëw bu leet ma ñëw fi tey waaye li ma fi gis nii nii nii gis naa loo xamante ni si.